Remember, every sound of the drum that you hear is asalaamaaleykum sama gars yi seen rubrique Remember tey nag dafa ñëw ci taal bi Serigne Abdou Karim borom maxal la axlaax di bu mag koo xam ne yàgg naa ko fekk Angleterre alsan nan nga duggee ci football. dama woon benn frère bu football tudd Pisco Pisco Ndour euh, Mamadou Ndour la tudd ma ñu gën ko xamee ci tur Pisco Ndour kooku defe naa moom gën a incité pour mu dugg ci football parce que bon. dama ko doon seetaan muy football donc euh, donc mu amoon ci succès quand même même succès bu ndaw quand même ci quartier bi ak ci au niveau national donc euh, maanaam ànd ak moom di ko teel ay crampons et tout ça donc j'ai vu que passion bi noonu la ñëwee daal. yan club nga jaar. man jaar naa yogoo laa commencé mais bon yàgguma fa noonu sax dama ñëw rek après ma euh, donc ASC Liberté 6 laa ma dem France. Saint-Étienne dama dem euh, collège Sacré-Cœur jënd football El Hadj ni ma yaa dàq football ci Sénégal El Hadj yan lien ngeen am. non daf ma bëgg rek sama gaynde rek waaye non <laughs> moom moom moom moo laa football <laughs> noonu lu ñu nekk ay xarit rek El Hadj dafa nekk nit ku baax bon nit ñu eh, ko mënti waxal yëpp eh, ak ni mu mën nekki na ma ak yooyu waaye xol bi baax xol bu baax la waaw am na xol bu baax. nan nga gisee sunu équipe nationale. Euh, équipe nationale bi daal euh, nu ma ko gisee mooy équipe bi individualité yi baax nañu individualité yi vraiment defe naa Sénégal mosul am ensemble individualité yi am nii donc euh, bien vrai que 2002 on avait une quelques individualités mais on avait une bonne équipe waaw équipe bi moo dëgëroon mais booy booy bees yi individualité yi ñoo baax léegi nag loolu peut-être que dina jël temps. pour pour ñu dem ba am équipe bu baax donc euh, peut-être que euh, échec yi jot am nii mooy ci ñaari coupe d'Afrique yi passé donc peut-être que j'espère que dinañu servir que ñu dem ba ba ba bii nga xamante ne coupe d'Afrique bi ñu dëlmal ni muy euh, en Égypte mu doon équipe bu soudée mu doon équipe bu dëgër comme ni ñu ko ni ñu ko tàmmoon di ko gisee en en 2002 wala yeneen yeneen campagne yi avant waaye daal. Euh, individuellement gis nañ ne am nañ ay talent yoo xamante ni vraiment jéggi na dayoo ñi nga xamante ne ñi ngi ci jàpp euh, de de de mooy ñi nga xamante ni ñi nekk ci staff bi wax dëgg ñu ngi def seen liggéey ñu ngi def seen liggéey ñu ñoom Lamine Diatta ak euh, waa 2002 foofu mu Tony ñëpp ñu ngi def seen liggéey yàlla dimbaleegu leen ba ñu am ci ndam donc euh, ñun ñi nga xamante ne nekkul ci stade bi tamit ñi ngi def la tout pour jàpp ci parce que il faut nga jàpp ci de près ou de loin. mu jot da ngeen di jël ay ndogu du ko jox doomu aadama yi te nag loolu ñun yàgg nañ ko xam ci yow yàgg nañ ko gis ci yow pour pourquoi ce choix. ah mais loolu lu normal la parce que je pense que euh, tey euh, nga siw boo demee ba siw comme yow Abdou Salam. nga demee ba si yëpp xam la adduna bi yëpp xam la ngay dem fu ne di jouer concert ak yooyu il faut que sa sa sa influence il faut que muy dellu ci ñi nga xamante ne ñoo lay lay tàccu ñooy fecc sa musique ñun ba ñuy football tamit ñoom tamit ñoo ñu tàccu di kontaan suñu victoire donc projet bi mag Tafa ñoo ko Moustapha Diagne ko ñoo ñu ko initié. donc euh, muy sport ak musique moom muy musique man sport ñu ñu jàppandoo pour euh, def benn affaire boo xamante ni Sénégal ñëpp dañ ci teg seen bët te ñu ci bëri dinañ ci jëriñu. yow taalibe nga ñoo ngi lay gërëm di la sant ndax bi ñëwee gis na ni ñu dalalee maak sama rakk ji sama doom Sidi euh, ana lay wax sunu groupe bi vous et nous. waaw nag moom groupe bu xumb la. mu <laughs> koy seetaan def. Omoro non Omoro moom man Omoro laay wër. Omaro laay ñoo bokk Liberté 6 nag <laughs> yii cantaakun boobu sama xarit la ku baax la. jërëjëf kookoy sunu xarit sama rak sama mbokku taalibe ku baax ku yàgg def lu baax ah dalal na ma nag ak jàmm ma nag sama gaay yi waa 2STV yi gars yi lii laa leen indiloon kër Alassane Ndour international de football vous et nous remember.